asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu di leen ziar di leen balwaq ñaan sunu borom boole ñu jéggal ñaanal suñu directeur Hadj Bougane sunu borom dolli ko sàmm dolli koo aar musal ko ci ndog musal ko ci bépp gàllankoor ñaanal ko mboolem jaamu yàlla yépp itam ñuy dellusiwaat rek ci sunu téere bu tedd bii di alquran Eh, sunu maam jële ci Touba waxoon na ne li mu gis ci ñuy jaaxle ñépp muy xaadim rasul nee na boo delloo ci alxuraan sa jaaxle jeex tànk yaa ngi ciy dellu waxul nag nga ubbi ko naa ratatatatat déedéet dellu ci alxuraan mooy roy ay jikkoom yi mu la sant nga def ko li mu la tere nga bàyyi ko nga gis ne yonent yi nañ lu ne daj nañu lu ne loo dégg muñ ko loo daj muñ ko ndax ku aw fa gaaya aw la laaloon gaaya laal du noonu mais téere bu am solo nag sunu borom nag waxoon ñu cosaan solo bi mu am fàttali ñu suñu cosaan waxit laboratoire yi ñu jaar muy ñett mën yu di nutfa ak alaqa ak mudduqa labo laboratoire bii bu mën yu la tudd ñu jaarale la fa nit pour mu jëlaale wàllam bu màggee mën ci am doom moom it mu fa def quarante jours ñu pare ko ñu génne ko ci laboratoire boobu yóbbu ko ci bu ñuy tuddee deret foofu lay jëlee deretam muy àllaqa su fa jeexalee quarante jours li mu war a am yépp mu am ko ñu yóbbu ko ci beneen laboratoire bu ñuy tuddee mudduxa mu mel ni suuxu yàpp wu picc ba mu nooy pour mu yàppam su ko defee nag foofu la lépp di déparé nag sunu borom nee na su ma kaana allaqatan fa xalaqa fa sawwa su ma ci defee yi war yépp nag ma génne cër yi nag mu doog a doon nag nit njaay fa sawwa mat sëkk ma yemale ko nag bàyyi ko heure bu ma neexee ma génne ko mu ne tokk ma niyu boobu nag jaaroon ci laboratoire bu ñuy tuddee mën yu génn dugg ci bu ñuy tuddee deret génn dugg ci bu ñuy tuddee yàpp moom laa mujj fa jaala minhu zawjayni ci laa mujj génne góor ak jigéen ma liggéey ca bu góor muy Iran ma liggéey ca bu jigéen muy Xadi muy zawjayni ci laa jëf xaj bu góor bu jigéen nag bu góor bu jigéen bëy bu góor bu jigéen saqalay bu góor bu jigéen xorondom bu góor bu jigéen zawjeyn fa jaala minu zawjeyn ban ak ban mu ne a zakara wal unsa <laughs> zakar nag ak unsa mwenye firi eee mabou mwenye fwak di tude a wre di gen wle boku e zakar al un sa ha tout bou jem mwenye sek sibe le tout bi waxul al rajul waxul al mara moo tax léegi-léeg ñoom grand sëriñ ñiy def ay conférence ci seeni discours ñu naan zukuran wa inaasa ñu ngi nuyu gu sexe yu góor yi ak sexe yu jigéen yi azakar mooy sexe boo ne zakka rek tudd nga li ci sama biir tubóy soo ne unsa tudd nga li ci biir seen jigéen bu ma ne nag nga fa du ma ko tuddal loolu moo tax yàlla ne fa fa jaala minhu zawjayni ma jël ci mbi euh, ma defar ba pare génn ci ni nee ma def ca nag ñaari sexe ñaari paire kii ma def ko sexe bu góor kii ma jox ko sexe bu jigéen ñu boole ñaari ci laa génne zawje yi ca ànd ba rapport ba mu jur góor jur jigéen na sunu borom azakara wal unsa ma bind génne ci jëmm ja bi ma ko defaree ba pare bële ma def ko azakar jox ko awra góor bee unsa ma jox ko awra jigéen muy ak zakkarawul unsa moo tax yéen ñi def seeni discours ñu ngi leen di nuyu seen discours arabe yi zukuran wa inaasan mooy sexe yi yu góor yi sexe bu jigéen waaw arajul mooy turu turu borom sexe bi al maratu mooy turu borom sexe bu jigéen waaw arrajul yàlla tuddul nag jëmm yi dafa jur lay lay dafa tudd lay fa ñuy liggéeyee lay jur jëmm yi muy zakara ba ak unsa ba li ci biir tubu yu góor ak li ci biir seru jigéen bu la neexee sax li ci biir tubayu jigéen ndax léegi jigéen ñi góor ñëpp a sa tubay waaw teg si bi la tudd ñu awra bi dégul fa jaala minu xam nga génne ko ci laboratoire mën niu lu mu fa am quarante jours mu jëlee ko fi yóbbu ko pour mu jël deretam ci laboratoire bu ñuy tuddee deret mu am fa quarante jours mu jëlee ko fi yóbbu ko ci laboratoire bu ñu tuddee yàpp pour mu jël yàppam am fa quarante jours fa xalaqa fa nag la lépp di yembee loxo yeeg cër yëpp génn mu fa mu sànq der bi nag nga <laughs> der bi nag nee kooku nag fa jaala minhu ma mu ma génn benn ma def ko nag benn ma def ko fa jaala minu ci laa liggéey ak zawjayni ñaari peer bii ma jox ko ak zakar muy li ci biir tuboo yu góor binta muy li ci biir seeru jigéen ñu ak zakara wal unsa ma génn leen ci kee génn nga xool ci suufam fekk fa bu jigéen kee génn nga fekk ca bu góor kee génn fekk mu am bu góor ak bu jigéen muy xunsa muskil yàlla bind na lu ne bind moo tax gis nga maba wallaay ki yàlla nattu sax muy màndeeka tëdd ci talibeeg ne ci baari war naa sant yàlla sax gis nga léeg-léeg nga gis yàlla teg nit jaam nattu yoo xam ne garance nga naan yàlla jërëjëf jërëjëf ni ma baax na kontaan na am di mu ne nag damay laaj gannaaw fa jaala minu ci mën yu laa liggéeye man yàlla ci la deferee ak zawjayni ñaari peer di ñaari mbindeef bii al zakar mu uutal ko caaya bii al unsa mu uutal ko sér lu tax li ci biir caaye góor mooy al zakar li ci biir séru jigéen mooy al unsa al fams waaw nee man mi jël mën yu génn ci jigéen bind ci mbindeef def ca awra jël góor def ca awra boolewaat leen ñu sëy ma génnewaat ca mbindeef kooku dama leen di laaj alaysa dalika ndax kooku nekkul bi qaadirin ala an yuxil mawta ndax kooku bu ne ne boo dee mën naa laa dekkal waru koo maroo ko gëm waru koo mën a gëm ki jël ndox bind ci jëmm góor ak jigéen jox leen awra ne leen danaa leen rey defaat leen mbindeef war nga koo gëm am de war nga koo gëm waroo koo weddi ndax ku jë sérieusement danaan wax ni daf daan wax ni xool li moo gën a yomb sosaat góom am de xool li moo gën a yomb sos góom alaysa dalika bi qaadirin ala an yuxil mawta ki jël mën yu defeer ci góor jox ko la ca caaye ja jël jigéen def euh, euh, mën yu bind ci jigéen jox ko lu ci biir sërëm kooku est ce bu leen reyee ne danaa leen dekkalaat waru leen koo gëm ñu ne ankay moo tax yonent bu ko jàngaan bu yeggee fii ala an yuxil mawta da nga dolli ballee ankay booy wax ab alquran ba yegg da nga naan ballee ci ñuy jàngalee ballaa ci ñuy jàngalaa hmm, alquran daa bëri jàngit ci soo paay jàng walluxee wallee lii saa sàjjee walluxee hmm. wadduxaa ñëw ñii ne walluxaa walluxee wadduxaa wadduxee isaa sàjjee إذا سجى ما ودعك ربك وما قل وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى الأولى أولى يا تلون خير لك من الأولى wala sawfa yu'tika rabbuka fa tarlee ak fa tardaa yépp baax na wa wajadaka laalan <laughs> cay mag ñi fa haddee wa wajadaka doolan fa haddaa wa wajadaka ailan fa aghnee ak fa aghnaa ala nin ka yatiman fa aawe fa aawa noo ci man jàngil na yëpp a dagandi xeeril maxluubi maxduubi wala laa liina wala dooliin yëpp a dagan xeyril maxluubi alayhim wala laa liin amin xeyril maxduubi alayhim wala doliin amin yëpp daga wasamsi walluhaaha walluhaaha wasamsi wadduhaaha jàngil yëpp a dagan léegi leen xam nga xale yi dañoo saay-saay léegi nga dégg paa bu jiite naan xëyril maxluubi xalim wala laan booyal <coughs> ci ngay ree di parce que pour ñoom maxlu bi da leen di reeloo aw wala laal yi ne ci baax na baax na di ci njàngi ni wér la bopp xayril maxlubi alayhim wala laaliin maxduubi alayhim wala daaliin yépp a baax boo ne maxluubi baax na soo ne maxduubi baax na soo ne wala laaliin a baax na soo ne wolof daal dina baax na yépp a jekk hmm. naka moom yépp a baax ñu dem hmm? sadaqallahul azim acca ñu dem ci laaj hmm? julli gees ka mën na koo tas day dagg julli waaye de tas kee ma ci jaaxal tas xanaa baat tas de xamoo ko <laughs> tas kay mooy ni sukki def karaw gi tasaare ko ni looloy tas mu ne ndax day tas julli gi wala du ko tas ma ne ko tas kay bokkul nag ak <laughs> dagg ci am ñeenti rakka juum dolli ca benn muy juróom daraawul day toog sëlmal sujjóot ñaari sujjóot sujjóot siggi toog allahu akbar sujjóot siggi waat toog taaye sëlmal baada salaam lay def kii julli julli juum dolli ca même boo dolliwuloon tey danañ ko indi ci seen diine bi tey boo doon julli nga am ñeenti rek yow tranché ni juum ba jóg fàttali ko ni julli gi mat nga ñëw toogaat taayal sëlma sujjóot ñaari sujjóot muy baada salaam su dee da nga am nag ñett ñetti rakka defoon ne mat na ñeent nga toog foofa taayu sëlmal fàttaliku ni i ci ñett laa sëlmal yéeneel kàbbar mottali julli bi jóg taxaw indi ñeenteel bi sujjóot baada salaam lu tax sëlmal bi nga sëlmal ci julli gi matu da ko cee dolli moom ngay def ok jeex na voilà mhm. waaw xam nga dafa am mbëggeel am sopp am xemmem ñii da leen xemmem ñii nga sopp leen kii nga bëgg ko waaw maa jaala allahu li rajulin min xalbayni fii jëw fii yàlla nee ñaari logement joxuma ko góor benn logement laa ko jox muy benn xol kenn rek la ca mën a bëgg ña ci des mu sopp leen ñii mu xemmem leen xamul tax xam nga foo koy xamee ki nga bëgg lu mu def neex na la ki nga sopp ngeen xulu ki nga xemmem mën ngeen xulu waaye ki nga bëgg moom lu la def neex na la ndax jaaltu xubbi makkaana shikaayati biñ ne la waaye yow man Assane jaaxal nga ma yow Germaine mii lu mu la def rek nga ne waaye garaawul waaye lu tax mu romb la di la woŋ ki nga bëgg lu mu la def neex na la lu mu def neex na la lu mu wax neex na la lépp a ma la neex nopp yu gudd ba du jël comme sama bopp yi nga nim ngam ne doo ko gis sa yoon bopp iran bu réy bi yow yëpp yow gisoo ci dara mbëgge la koy def waaye xam nga man man daal li ma jaaxal sama far yi dafa ñaaw nag ñu nga bopp bi bëggu far nga yor mais bëggu wax nga wax ji far nga yor sama far wi daa far ak man waaye rafetul waaye soo bëggee nag dootoo gis noppi grand sëriñ doo gis bopp ba lu mu mel doo gis bët yi lu mu mel lépp la saf pour yow lépp baax na waaw ah, parce que da ngay jàpp ni tuute est ok mais bu fekkee nag mbëggeel amul da naa moom nag li ko ah, gis gis nga bopp euh, ndóoy bi yow safari bopp bi dafa garaaw de mu ne man kay mooma ci jaaxal sax waaye ah, man de dama koy mbaraan rek gis nga ko mbëggeel moo raar waaye bis bu la ko yàlla nattoo subhanallah dañ naan kii dafa dog arab yi bind nañ ko alxubbu jununun ida tam nee mbëggeel su dee dëggu na mbëggeel bu dëggoo dañ naan kii daf est ce que est ce liggéey ko kii dafa dog kii ni ci waa ji rek lu xew nii yow xanaa dangaa dog sa yaay dana la ko wax sa baay dana la ko wax say frère danañu la ko wax ñu ne booba nag la mbëggeel ka mat tànk waxuñu la dof nga rek def na alxubbu jununun isa tàmm am na fii duma tudd kenn màbb koo xam dañuy def émission avant may commencé mu xuloog ndaw dox na fi ci tàng-tàng ma ne ko yaa li ngay lu man ko naan mu ne sóob rek boobu ma ci dara bu may mere may dof ci la ko woo mu ñëw fekk ñu fi liggéey lam kaaje yoon mu jox ko <laughs> jox ko wàcc uutal ko jakarta bu ko yóbbu fii téléphoné rek naan ko baa sàccu la baa jàddul fenn yegg nga am yegg ko ah néew ma nag grand sëriñ la damaa wax rek noonu waaw donc loolu mbëggeel bu amee dañ naan kii dafa dof dana la jar sax dim luye ji loolu day am tudduma kenn ndax mbëggeel gu métti rek jaaltu xubbi xubbi makkaane shikaayati ku jooyal ñaar fukki góor seeg benneel ba da doon kàcc rek moo bind mbëggeel du taxu jigéen dana la bëgg beneen góor takk ko ba tey yaa fa ne mu tas keneen takk ko ba tey yaay ne ca xol ba du taxu ku mu àndal malgré lay tudd bu ko laaj malgré la mais ko ñàkk pexe la jigéen a ngi ci néegu sëyam balaa am bànneex ci jëkkëram mu ngay xalaat ka mu bëgg maa la wax li man iraadu lañ su jëkkëram di sëyal moom muy imaginer faram wa mu am màbba ma bëgg lay xalaat sinon du am ci jëkkëram bànneex góor a nga tëdd ak jigéen balaa ca am bànneex xalaat ndaw sama nopp doo ko mën a am bànneex moo tax bés bu nu ñu weccee góor bés bu nu ñu weccee jigéen maa la ko wax bés bu ne jigéen def essence jël jëkkëram teg fee jël faroo teg ci wetam ci xalaat ba am la mu bëgg bés bu ne góor def ko toxal jabaram jël ka kamonam teg ko ci palaasam di ko xalaat am bànneex ci kii mu takk ci bëgg day am fii moo garaaw fii mooy liggéey loolu xoolal ka ne ci bitim réew nga xoolal yor photo góor di ko xool ba mu yàgg sama nii tuur lii lii garaawul kii moo nekk law ji nekk ca nekk ca nekk ca xool nga góor buy xool jigéen ba mën yum tuur jigéen di xool photo góor di ko xool ba am ca lam bëgg di yuuxu léegi kan moo ko laal ne ma fii mooy liggéey yàlla daal bëgg nit fii ak a garaaw ay ayca li ñu amoon ci tafsir bi ci waxtu wi jeex na ki doon def tafsir ak tontu SMS mooy seen mbokk Iran Ndaw lépp lu mu ci juum yàlla na ma ko yàlla baal lu ci juum yàlla na ko yàlla def yu sotti ko jëkk ñu bokk ko jëriñoo ba suba ci waxtu insha allah